asalaamualeykum wa rahmatullah waa Lu Xew TV maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ku nekk ci turam ak ci santam di leen wax ne visionné naa video bi gis naa ko dégg naa liñ ci wax à propos de nos compatriotes là qui vivent en Mauritanie ñu fay dund lu méttee méttee métti lu tar parce que nii ñu wane nii ci vidéo bi honnêtement lii moom wax dëgg yàlla un être humain kenn waru ko traité nii te vraiment c'est des conditions très difficile te ñu ne ci biir Afrique la ñu nekk. africain di ko teg moroomu africain kon loolu doy na waar mais tamit nañu xool ne xale yi tamit bu ñu bëgg a kut ko kut tukki dem rek parce que koo wax mu ne wërsëg rek mbaa bàmmeel bu sori loolu du wax ndax am na loo xam ne vraiment bu ñu naree dégrader sa personnalité ah wax dëgg yàlla am na loo xam ne di la traité ba nga xam ne euh, euh, mala sax moo la fa gën traitement loolu daree àddina jaratu ko parce que ñii lii ñuy dund nii wax dëgg yàlla tar na metti na te li ma ci jaaxal ñoom nee nañu consulat bi yëg na ko yëg na ko te réagiru ci te moom normalement comme sénégalais la fa représenté bu ko yëgee war na caa mën a intervenir le gouvernement sénégalais yëg ko ñu faj lu mel ni parce que lii tamit wax dëgg yàlla dafa metti ci ay ndaw yoo xam ne dañu dem pour wuti ndaxte tamit tukki moom cër la bu yàlla ne sa wërsëg doo ko amee sa dëkk àlakuli àllin il faut nga génn te bu ñu toggee sa añ quelque part il faut nga dem añu ko fa loolu moom mënul ñàkk xam naa loolu ak jom rek moo tax ñuy dund lu tar lu mettee nii mais nag wax dëgg yàlla lii moom ça mérite beaucoup de réflexion parce que c'est des conditions atroces des conditions dures qui dépassent l'entendement lii moom wax dëgg yàlla c'est pas un traitement humain te nga ne Afrique laa nekk te man li ma jaaxal pourquoi ñoom particulièrement la les Sénégalais ñu teg leen loolu ba boo jaayee ba ngoon jot ñu ñëw boo amee vingt cinq mille ñu ne la di ma jox trente mille nga jël ca la nga économiser woon teg ca à ce rythme da sonn rek mais doo am dara. mais ci biir vidéo bi maa ngi dégg question yi nga koy posé ndax ñoom lan moo tax mënuñoo ñibbi si Sénégal ndaxte man euh, si je comprends bien ils sont pas dans des bureaux ñoom dañuy jaay. ils sont dans l'informel te informel boobu mun nañ ko def Sénégal te leen nit nañ ko wax nag parce que tamit gis nga dëgg bu jotee rek nañ ko wax parce que bu ñu dénigré lii ñuy def ba pare xam nañ ne c'est inhumain jaaduwul baaxul mais tamit il faut ñu wax ak suñu doom yi nag parce que le sénégalais est indiscipliné wax dëgg yàlla ci ñenn ñi ma ko war ax ngeen jéggal ma sénégalais dafa am ñu indiscipliné te gis nga indiscipline bi am fii Sénégal buñ ko jubboo réewu jàmbur dañuy am problème nañ waxante dëgg parce que encombrant encombrement humain bi am fii Sénégal amaana dëkk yooyu duñ ko nangu te fu mu dem wax dëgg yàlla day dem ak ay jikkoom dañu war booy dem tukki dëkku jàmbur nga summi sa jikko comme bubb teg ko fii boo demee la dëkk ba bëgg nga di ko def loolu tamit am na ci xaw ma nag loolu la xawma du loolu mais am na ci ay comportement yoo xam ne wax dëgg yàlla sénégalais yi di am ko fii ci Sénégal gi nga xam ne ñun sax ñun entre ñun daf ñuy metti boo demee ci marché gis nga yaa une anarchie totale trottoir amatul Sénégal kenn mënatul dox ci trottoir ci tali bi ngay dox di fël toog oto yi ndax indiscipline te da ngay gis marché yi par exemple ku am cantine génn ci biti di lal xam nga genre yu comportement yu mel noonu aussi bu fekkee ni ñoom tam fu ñu dem yóbbu ko fa te dëkk boobu tamit neexu leen ils auront toujours des problème à propos de la mer la géej gi léeg-léeg dañ leen ti limiter ne leen bu leen weesu fii mais ñenn ñi dangay gis dañ koy weesu xam nga loolu aussi problème lay indi bu ñu waxee ci lii ba pare tamit na ñu yaraat suñu bopp bu ñu dematee dëkk suñu doom yi bu ñu dematee dëkku jàmbur nañ xool la dëkk ba bëgg ñu di ko def mais boo jëlee jikkoy Sénégal fii yóbbu ko yeneen dëkk moom wallahi di nga am problème parce que sénégalais fii am na indiscipline wax dëgg yàlla anarchie totale lu neex waay def ko wax mu ne fii mboj du buur la fii laay sànni fii laay teg xam nga yooyu aussi boo ko yóbboo ci dëkk bu ko bëggul mun na la indil problème waaye de toutes les façons comme ñoom ñu ngi dem bay dund lii lii dëgg mooy nañu wàññeeku si ñibbi si waat seen dëkk parce que bu fekkoon ne ils sont dans des bureaux ma mën a xam mais ils sont dans le service informel booy dem di wuti ba nar faa torox nag nga ñibbi waat sa dëkk toog fa man daal noonu laa ko gisee ku ma ci heurté sa conscience aussi je m'en excuse di jéggalu bu baax a baax a baax parce que wax neexul mën nga wax ba wax loo xam ne di nga heurté conscience su nit te doo ko tey te fekk bëgg a defar rek moo la ci war may nuyu ñëpp di nuyu waa lu xew TV bu baax a baax a baax man la woon Mama Daba